waa gestes yooyu ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye daal liñ ci li ñuy xam ni moom la ñuy ñaax autorités yi nga xam ne ñoo ko yor nañ ko jox ñi ko soxla loolu daal moom moom moom vraiment mooy li nga xam ne mooy li parce que Sénégal am na fii ñoo xamante ni ñoo ko soxla lool lool lool te loolu ñu ngi ci au fin fond du Sénégal ñooñu moom foofu moom nañ fa njëkkee.

te doo leen xam mais pour mu identifier ñooñ ñëpp man li ma xalaat sama xalaatu bopp mooy na sensibiliser dugal ci jigéen ñi ñu nekk ci monde rural bi dañ leen di taxawu bu baax a baax a baax di taxawu ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ci gox goxaan yi nekk ndakaaru te seeni famille nekk à l'extérieur te amuñ lu ñu dimbalee. waaw loolu jigéen mooy mooy rôle bi nga xam ni moom la moom lay moom la war a euh, di def chaque jour muy di sensibiliser.

pour rek vraiment freiner coronavirus bi. rek ñu gën a góorlu Sénégal vraiment euh, ñi ngi góor góorlu suñu docteur yi jàmbaar lañu ñi ngi taxaw ci paj mi ah, am na nag loo xam ni jaaxal na leen muy cas communautaire yi te xamuñu fan lay jóge kenn ku ci nekk na vigilant rek te képp ku mu gis loo xamante ni nii jaaxal na ko su kooku mënul woote sax moom na woote signaler ko ñu di ko xool ko parce que kooku mënul day non seulement day na gaañ boppam mais dina am ñeneen ñu mën loraale. waaw loolu loolu daal moom ñu taxaw ci rek gën a góor góorgóorlu ci cet bi rek yàlla